mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat bi ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di gërëm yàlla bu baax a baax di sant bu baax ci teewaay gi yàlla may ñu wér ak kattan ak mën teew ñu ngi koy sant yàlla di ñaan rek di teew saa suñ ko mënee incha allah di nuyu El Hadji du Diouf euh, Top ab lay yu bu Sanjogu euh, Aïcha maa jigéen Souka. ak euh, ñeneen ñëpp a ah, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am nag mbégte ci teewaay fi ci 30 minutes chrono parce que gis na ni yéen a ngi koy safoo mais aussi tey gis na ni yéen a ngi ci wax seen xalaat parce que wax moom mun nga wax mais ñëpp ànd ci mooy <laughs> problème bi mais dañuy nangul rek euh, ñiy déglu ak ñiy seetaan position yi ñuy am. mais aussi critique ak suggestion yi ñuy def parce que àddina loolu mooy doxal mbir mooy ñu lay critiquer mais aussi di la suggérer ay mbir ni boo mënoon def lii boo mënoon wax lii yooyu yëpp da ciy baax ndaxte mbir mi pour mu jàkk il faut ñu sot sotoo ko kon di leen gërëm bu baax a baax di nag euh, am mbégte ci waxtaanee réew mi siwaat ci li fi xewoon tey dinañ tànn ñaari ponk bu ci beneen xaje ñu yokk ko ci mooy presse bi ak traitement bi ñu def ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr Serigne Saliou Guèye mi ñu woo ci yoon mais aussi Ousmane Sonko ak aji Sarr ak Ateba ak génn Ousmane Sonko tey chronique bi dama ko tuddee Ousmane Sonko un combat pour l'honneur la dignité et la liberté lu tax ma indi ñëw ci honneur parce que kàddu yu Ousmane Sonko yi ma mujj dégg du bokkul ak yu démb yi mu ne doon président de la république euh, doonul ab obsession ci moom maanaam doonul lu ko tee nalaw loolu bu ko Ousmane Sonko waxee ñun mun nañ ko gëm pour plusieurs raisons mais honneur li mu ko jaral bari na dignité li mu ko jaral bari na liberté li mu ko jaral bari na. da ngay dégg ñu ni la usman Sonko li mu wax waru koon wax jëme ci Adji Sarr li mu wax waru koon wax jëme ci lii ak lee li mu wax ni cooki fin ci laa egg mortal combat gatsa gatsa yooyu yëpp di ay termes yuy utiliser mais nit ki du nu mu waxee mais nu mu jëfe la loolu la wala fii di far di wax Ousmane Sonko gatsa gatsa waaye mos ñu gis mu dóor nit Ousmane Sonko cooki fin mais mos ñu fekk fu muy xeexee lu tax ñu mën a wax loolu mooy toj nañ fi ab vitre otom taxul mu xeex ak takk der yi Ousmane Sonko jag jag jagee nañ ko jëlee ko këram Ousmane Sonko ci daamaram ñu ne pomp nañ ko am déet gisuñu fu mu xeexee bu dee ni dóor nañ ko mus gis fu mu fayoo kon ñi jàpp ni nitu fitna la mais fitna mooy ñu teg la fitna nga delloowaat ko man compréhension bi ma am ci Ousmane Sonko ak ay kàddoom mooy boroom gémmiñ gu naaj di wax jàmm te dan ko cee poussé ba tey jii mu mën a radical à ce point parce que en 2019 bi ñu def élection présidentielle lu bari xew na ci élection yi ci caravane ji nga li daloon caravane bu pur ca Tamba ba nit faatu ji mais Ousmane Sonko daj na ko Fatick ak feneen ak feneen mais taxul woon ñu ne ay nit Ousmane Sonko dóor na nit gaañ nañ ko. ba tey jii ci nemmeeku tuur yi muy def de setlu lu bari day dal ci kawam mais ñu ne garde corps Ousmane Sonko dóor na di wala li bariwul lu muy am kon ñi bëgg a jël fitna kole ko ci Ousmane Sonko ak ay kàddu yu ñaaw mun nanu juum parce que nit ko doo ko jugé ci ay kàddoom mais dañ koy jugé ci ay jëfam waaye benn jëf la mës a jëf ci àddina ñu ne moo gaañ diw wala moo du dóor diw loolu bëgg naa ñu bari bàyyi ci xel ñu ne dafa yëkkati ay kàddu jëme ko ci aji Sarr ba dégg ay naaféq di ko ñaawlu mais li Adji Sarr teg Ousmane ko dëgg laam du dëgg mais loolu lu ko gën a ñaaw ci àddina amul mooy da nga maa violé boo xam ne tey bu doon ni dëgg la crime lañ koy jàppee crime mun nga ci tëgg fukki waaye tey ñàkk ci lu bari ci àddina parce que li ñuy wax ci wàllu dommage et intérêt wala ay amende yi lay amende waaye ci dayo ji mu am ci koo xam ne day yóotu réew mi bu doon réew mi dañ ko xaaj ñaar genn wàll réew mi ñu bari ànd nañu ak moom kooku ak dayo bi mu am ci wàllu politique ak fi ko ndaw ñi teg ab xale mun a jugee fee doon jigéen mën hmm? kaa tuumaal tuuma googu ba tey ji mënta indi firnde ñu ñu dem ca tribunal di àtte mbir mi ci jamono ja nga koy àtte xale bi lu mu waxul ci àddina amul dan maa tëral fii dan maa laal fii dan lii fii dan maa lee lu ne xale bi wax na ko mais ñun suñuy teggin dan dul may pour ñuy yëg egg foofu yemuñu ci di ko tuumaal ni da doon sàkku mais dafa yoroon sax ab ngànnaay tuuma yooyu Adji Sarr teg ci kaw Ousmane ko ba tey jii du vidéo du audio bu génn waaye tax du ab photo bi mandargaal loolu ñu xëy ay journal génn pourtant la fa teewoon ci ay témoins ci àtte ba li ëpp ci témoins yi boo xoolee capitaine Touré nga xool euh, Alfousseyni Gaye nga xool euh, Mama Ba ngay xool ngay xool di xool ba mu jeex ñoom ñëpp seen kàddu bi ñu ko dëkkalee danoo seetal son ko dinaa dikk ci docteur Alfousseyni Gaye ak traitement bi ci presse bi am loolu lépp bi ñu xëyee presse bi waxu ko maanaam presse bi waxu ko presse bi lan la doon wax x salaas maanaam nu mu gën a ñaawee ñaaw na ba noppi waaye dafa gën a ñaaw nu mu gën a ñaawee lañ ko doon nettalee te pourtant mbir mi ñaawul rek jëm ci Ousmane Sonko mais mbir mi ci kàddu yu seede yi am na ci loo xam ne da setal wicc am na loo xam ne da ko ragg ba mu set am loo xam ne tey jii dafa tegg tuuma kii di usmaan Sonko pourtant yenn ci presse yi fii ci réew di Sénégal binduñu ci loolu mais lan doon yenn ci lu bon ci usmaan Sonko di yàq deram ak di ko tilimal lan doon traité jël ko titre ko bindee ko na mu leen neexee te li ëpp ci presse yi danga kaa def loolu sax dama naan du mbaa moo tax ñu téye kii di Serigne Saliou Guèye ak yor-yor ndax moom bu fi nekkoon leneen lay traité parce que moom dañ ko farale ak Sonko mun na am moom bu fi nekkoon ak yéenekaay bi di yor-yor Serigne Saliou Guèye la muy bind day wute ak li ñeneen bind kon est-ce que téye bi tamit jubluwuñ ci loolu. am une certaine presse boo xam ne da leen di ñu mën a bind lu leen neex ci Ousmane Sonko yàq deram ci na mu leen neexee mais ñi mën a bind ci moom lu baax ñii ñu xoqatal leen ñii ñu teg ci moom lu ne Ousmane Sonko ñëw traité Adji Sarr loo xam ne tey jii man tam du mu ci egg ñu ne noonu lu mu wax waru wax lu mu wax waru ko wax mais li ñu waxal Ousmane Sonko nag ak li ñuy xëy di ko yàq nag Ousmane Sonko dégg na fi rebelle la dégg na fi terroriste la dégg na fi la. dégg na fi lii dégg na fi lee lépp bu lu dul biir na biir Ousmane Sonko dégg ko ci réew mi te ay kilifa ñooy toog di ko wax am na ci ñoo xam ne tey nekk nañ fi ay kilifa ci réew mi naan juutal na ko fii li ne ko fii ci ko xam dafa am ay soxna am ay doom mais am ay mbokk am ay xarit am ay nawle ci réew mi léegi nag bu génnee di tontu di wax ñu ne waru woon wax lii lu tax waru ko wax mun naa am bu doom man du ma ko waxee noonu waaye man du ma Sonko. nit ku ne da ngay sa bopp dangay ngay sa bopp ci jëmm di ngay traité liñ teg Ousmane Sonko buñ ko tegoon ñii di wax ñoom ñëpp seen i mbokk dinañ jug seen i xarit dinañ jug liñ mën a def ba setal seen bopp dinañ ko def rawatina ñu tumaal la loo xam ne da nga jàpp ni du dëgg danga jàpp ni wérul kon tey ji bu ne egg naa ci cooki fin cooki fin mooy lan mooy combat final c'est un lion blessé nit la koo xam ne danga ko blessé dañ ko gaañ gaynde gu gaañu day gën a soxor tey ji neen day jugeen jigéen soor jëm ci ndakaaru te nee na ci yoonu suuf bi lay jaar ne ko ay nitam gunge mais loolu est-ce que war nañ ci yegg est que war nañ ci yegg ci procès boo xam ne tey jii fa mu tàmbalee ban ko ko jiñee ak tey jii ba Samba Sall faatoog tey jii bi Omar Maham Diallo ñëwee mais les témoins à décharge yi seetal Ousmane Sonko yëpp daf mel ni ñoom seen kàddu amul benn valeur ci xale boo xam ne ay audio génn na wedd ay waxam di Adji Sarr mun a dama doon fo ah ëmb boo xam ne ba tey ji wasinagu ko ñu ne dama doon fo ndax dama tegoon ay tactique rek ay deal pour mën a génn mais kooku ni mu tegee ay tactique ak ay deal ci ëmbam waaye tey ci yeneen ak yeneen ci ay audio mais fi leen fi génnee ay audio muy tuumaal ay kilifa ay kilifa yu respecté ci réew mais audio yooyu du leen tudd. ñu naan bëtu gaynde beeg ñoom ñëpp ay lii leen mu traité leen di n'importe koi mais loolu lépp dañ ko war a fàtte rek pour pourtant loolu ci àtte bi dañ ko war a sóoraale parce que bu nu amoon vidéo wala audio contre Ousmane Sonko dinañ ko génnee publier ko dinañ ko génnee publier ko boo déggee ay nit naan la non nit vidéo yi ak kii lu tax génnewuñ ko ndax ay teggin loolu bu bu doon ay teggin la ñuy sóor avocat Adji Sarr dina génn di wax yenn kàddu yi nit ñi di ko dégg. la Adji Sarr doon wax ca tribunal bu doon respecté na ay teggin duñ ko def fa benn procès boo xam ne procès boo xam ne dañuy tëju à huis mais ñu def ko un procès public mu doon jéebaane wala yàq der wala bokk jéem a toroxal koo xam ne suñu borom mun na am toroxalagu ko ndaxte 2016 ak léegi lu ne ñu ngi koy jéem ci moom loolu mënut a sotti léegi ñu bëgg ñoo gëmal ni ay mbiri teggin wax ji nañ ko defar léegi comme ñaaw na ba noppi na gën a ñaaw rek pour man Ousmane Sonko ci niveau boobu la toll. te war a ñu egg nag fi muy war a gën a ñaawee parce que ndax nag ya ñax bu wow mën na lakk lakkaale bu tooy kon lii xew ci réew mi dana war a am ay responsable yu ko gàttandu mais réew mi problème mooy kan moo naan déet dañ daan gis bu dara xewee am ku ne déet ah li war ñu cee egg lii ne war cee egg parce que Sénégal am na histoire ah jaar nañ fu bëri coowal Moustarchidine jaar nañ ci coowal euh, maître Babacar Seye 68. 62 yëpp jaar nañ fi mais boobu amoon nañ ay kilifa yoo xam ne ab na fu mbir mi di egg da déet ndaxte buñ fa egg mu gën a ñaaw mais léegi fan lañ toll ci niveau mooy ñaaw na ba nopp na gën a ñaaw parce que kenn du ne déet loolu nag waruñu ci egg waruñu egg ci fi muy gën a ñaaw kon loolu il faut ñu jug ci léegi ñu ne procès bi du complot complot la war a du complot waaye seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel tey ji képp kuñ ci tuddoon ci enquête ba lu mooy capitaine Touré da da laay defal promotion ana Serigne Bassirou Gueye ma nga ci OFNAC wante dëgg ana yàgg ma nga ca police di jiite ana Moussa Fall généralu gendarmerie la waxuma ñoo def de da leen cee tudd Ousmane Sonko tudd leen ana Mamour Diallo tey jii mooy directeur ONAS te ay audioom génn na fi mu waroon doon témoin boo xam ne dafa waroon a teew ci ndaje mi waroon a teew ak ku mënoon a ñàkk a teew Mamour Diallo moom teewaayam dafa amoon solo lu tax nag ñu bëgg a obligé Ousmane ko ne ko teewal far force ci foo xam dal dafay fay di la xas na Mamour Diallo yow toogal xaar te Mamour Diallo Adji Sarr tudd ko tuddaat ko bàyyi audio génn ci te ñu ne ab oto moo jëli Adji Sarr yooyu yëpp di ay tuuma tey ji mu waroon ñëw setal boppam waaye tey indi ay seede Mamour Diallo moom moom ñu defal ko promotion dénk ko ONAS teg ci ne ko toogal f comme si moom du ci dara mais loolu y problème. kon yooyu di am mu ñun mooy tey suñu xel yooyu du am mooy tax ñun ñi am problème léegi nag egg nañ ci benn niveau ci dossier bi mu doon lu compliqué nag parce que fii ak le premier juin kenn xamul lan mooy xew Ousmane Sonko ma ngay jugee Ziguinchor jëm ci Ndakaaru léegi bu yegg seen Ndakaaru nan lay demee ak ban dogal la juge bi di jël ak taxawaay. bi ci ñenn ñi am jàpp ni waruñu may Ousmane Sonko benn sens parce que bu ne dix viol bi dix ans la le procureur wax ci réquisitoire am ñu teg ci ne corruption à la jeunesse loolu mooy lan mooy si waa ji mënul rëcc même tey ji bu ñu ko setaloon ci viol ak témoins yeeg yëpp léegi am na fu ñu ko mën a dóor galgal na ko da nga doon corrompre diw ak diw alors que baat boobu même maître El Hadj Diouf ak man juriste yu ma dégg yëpp nee na xamagul lu mu doon. kon maanaam est-ce que nekkul ni den mooy duñ ko may fu mu génnee duñ ko may benn sens mais waaye nan arrêté suñu aqlay taala bu leen leeral Ousmane Sonko deful dara bu leen leeral amu leen benn preuve bàyyi leen Ousmane Sonko ma dem Sitor Ndour ban dayoo la ëpp Ousmane Sonko ba Sitor Ndour tey jii ñu mën ko bàyyi bénéfice du doute malgré li ci xew yépp sénégalais mën a respecter cette décision mais Sitor Ndour est-ce que moo gën a set Ousmane Sonko. tamit il faut tamit des fois ñi demee suñu xel ba a demee xol ñu ne Ousmane Sonko moom far force dinañ ko àtte te am na ñu ne enquête bi gendarmerie la waroon a yem ginnaaw ba certificat médical génnee weddi ni viol amul korok bi procès bi amee dama gis benn audio benn booy mu ne li ñuy waxloo docteur Alphousseyni Gaye du dëgg mu ne parce que bu procès bi jeexee dinga dégg ñu naan la gis na man yu fii man yu fi man fii ñu xëy ñu ne une certaine presse boo xam ne mooy journaliste yi génn ñu ne docteur Alpha seeni gay moo ne gis nañ man yu di sperme ci pëyu aju Sarr mais bu fa nekkee même bu dee ni nekkoon na fa kan moo ko fa def aju Sarr bi mu jugee Sweet Beauté dugg na ci oto bi mu duggee ci oto am na ñu mu àndaloon ci oto bi tout peut se passer addina kenn xamul kon il faut ñu tey léegi presse yooyu xëy bind ne seeni Gaye moo wax loolu seeni Gaye bind communiqué ne mosumaa wax loolu léegi ba presse bi génnaat ñu jox leen kàdd ñuy tontu mais loolu du seen du seen war waaye ñoom waa presse bi ñoom amuñu problème ak Alfousseyni Gaye Alfousseyni Gaye justice la amal problème bu dee la mu wax fa la ko waxee mais justice moo war a àtte loolu. juge bi moo war a apprécier loolu mais ay journalistes ñooy génn naan la mu wax moo ko wax mais kon ñoom li leen di jiñ naan da leen monter contre Ousmane Sonko bu yàggee mu doon dëgg parce que tubaab nee ki sex plus s'accuse ni laa defoon da yokk ay sàgganu mais journaliste nañ yeewu tuuti mais ñu ay chroniqueur judiciaire yuy liggéey ci wàllu yoon di ci bind génn ne la mu wax moo ko wax Alfousseyni Gaye mii wax nday mi liggéey yow nga bëgg ko waxal loo xam ne moom weddi na ko. léegi yow nga man comme si yow da laa monte ni fexeel ba ab esperme nekk ci payu Adji Sarr fexeel ba wax loo Alpha loo xam ne li waxu ko man teew moon ca procès ba mais balaa coow li di am man da am ku ma ci préparé dana ma ji nga bu affaire yi demee dinañ wax loo Alpha Seyni lu mu waxul man nit wax na ma loolu wax na ma loolu tey ji bu liy amee nag loolu day dëggal li ma waa jooju waxoon kon presse bi loolu du seen cër du seen cër werante ak Alfousseyni Gaye pour lan bind ngeen li ngeen bind nee na waxu ko mais werante xuuxaan tekk ngemb ca juge bi la ko waxee mais juge bi mooy apprécier ni Alfousseyni wax na li wala li parce que ba muy wax ñi ngi bind ba muy wax du ñàkk nii ña ngay enregistré on sait pas mais ay journaliste bëgg a def liggéeyu juge bi lool nag bu ne une certaine presse danoo contre Ousmane Sonko nit ñi duñ ko weddi parce que nag la xew sa ba ban génnee ci seen compte rendu waxuñu li Ndeye Khady Ndiaye wax waxuñu li capitaine Touré wax waxuñu li Alfousseyni Gaye wax waxuñu li Mama Ba wax te loolu lépp day seetal Ousmane Sonko mais la aji doon wax ci lu ñaaw ak avocat am lañ jël tegal ñu ko ci ñàkk teggin goo xam ne tey jii méngul ak éthique. loolu daf bi ñuy bëgg a rek ay carte de ak ay kii ji nga ma wax la da am loo xam ne ci àddina éthique éthique sa kër ndey sa kër bàyyi nga koy jàngee da la koy yaree nga am loo jomb am looy bañ am looy xool am looy seet boo wéetee gore boo wéetali koo gore éthique ak déontologie du lu ñuy wax lu ñuy doxee la ak lu ñuy jëfee yor ab carte presse taxul doon journaliste bu baax yor ab carte presse taxu fii gën see jub du yor carte presse taxul doon ab professionnel kon bëgg àtte journaliste yi ci carte presse moom naa naafiq mënta weesu lool mais presse bi lu leen dal ñoo ko yóbbee seen bopp ndaxte nag man dama bokk ci raar journaliste yi bi ñu tegee carte presse boobu maa ngi woon ci beneen rajo di non non code de la presse ànduma ci woon mos naa wax benn baat démb benn waaye daf ma woo fàttali ma ko na ma Omar waxoon nga ko man leen journaliste ñi ngi daas paaka boo xam ne bu buñ paree dañ koy jox seen noonu mu rendi leen bi may wax loolu yàgg na mbat na yàgg na parce que loolu laa gëmoon daan naa dégg Mansour Diop di ko contre Mame biram Wathie waaye ñi doon contre code de la presse bi ak ni muy doxee dañ cee wéetoon ay dof sax lan leen jàppe ay nit ñu amul xam-xam alors que ku am xam-xam dëgg doo wax li xew tey da ngay wax pour sóor ëllëg tey jii ñi doon contre code de la presse bi yëpp ak carte yeeg yooyu tey jii am na nu raison ndaxte la ñu daasoon jox kilifa yi moom leen kilifa yi di rendee tey Maty Sarr bi mu egg la ko usurpation de fonction quelqu'un boo xam ne mi ngi exercer dans une rédaction Serigne Saliou Gueye depuis le témoin chef desk politique yor yor Sen TV doon koo xam ne waxuma la dafa jàng ba mokal mais dafa toll ci jàngale léegi nit mun ko woo naan ko journaliste nga am déet ana sa carte ci quelqu'un boo xam ne demul reportage demul fenn koo xam ne demul reportage par carte presse ki ko soxla mooy ki dem reportage parce que mooy billet d'entrée moom la nga koy identifier mais ki demul reportage nekk ci bureau wala mu nekk dans rédaction di def chronique mais kooku lan lay doy carte presse bu ko amee lan la koy jariñoo mi ngi mel ne ku bëggul tukki bëggul génn réew mi buggul dem fenn nga ko utal passeport koo xam ne amul ambition tukki ci àddina bu ko neexee bañ am passeport mais ku dul dem reportage li muy doy carte presse il faut dire la vérité carte presse baax na ci ñiy dem reportage mais ñi toog mën na nañu xaar te comme nag danoo nekk ci procédure boo xam ne ñi ngi defar carte yi mais danoo carte yi ñëpp mun ñu xëy rek amandoo ko mi ngi mel ne carte d'identité ñiy déposé ñëpp dul amandoo carte d'identité ñaata nit ñoo déposé ci carte presse yi ba léegi tey ji mënuñu ko am ñoo léegi da leen di génnee ci journaliste yi mun na am seen carte da am lu muy xaar ñii mun na am seen jot mayu leen ko ñii ak leneen ak leneen seen journaliste boo xam ne yow mënoo bind éditorial munoo bind ci journal mënoo bind nga toog yow di laam-laamee journaliste sëñ Saliou Guèye yow naan dafa waroon am carte il faut sëñ Saliou li mérite respect bari na fi ñu fiy wax ba muy bind ci la témoin ñoom gëmuñu woon dañuy doon journaliste te cursus bi mu am pour nekk journaliste am na ñoo xam ne amul jaar-jaar bi léegi nguur gi yet bi mu nar a duma léegi da ko jox ñoo xam ne ci ñun lan bokk ñu ñuy ñu ñuy duma parce que yor na yéene kaayam yor-yor di ci bind li mu gëm ak li mu xalaat ak fu mu mën a fare Serigne Saliou Gueye ma nga Sen TV di wax ci chronique loo xam ne arrangé wul nguur gi. mais journal bi mu nekkoon le témoin am na ñi ko doon faral ak Abdoulaye Wade ak kii Karim Wade sëñ Saliou du rek Sonko rek lay défendre de mais ci mbiri Karim Wade sëñ Saliou yàgg na ci bind di ñaawlu ni CREI di doxee ak traque des biens mal acquis il faut que ñu xam ne sëñ Saliou du tey ñi ko doon enquête ak di ko jëm jàpp ñooñu du ñàkk ne mës na lire sëñ Saliou presse écrite yombul bind yombul wax ji nag. bari na ku ne mën naa wax fi ne looloo xew comme li may def ni waaye nag bind ab article bind ab éditorial bind ab chronique du ñëpp ko mën ki yàgg def loolu ba rajoog tele dab ko nga ñu lam-lamee ab journaliste am te ma gis ñoo xam ne man musu ñu def rédaction ci senegal fii <laughs> mën naa la ci coppet nit na la musul nekk membre rédaction mi nga kàttam rëy làmmiñ xamul dara musul jiite rédaction musul participer réunion rédaction lenn rek mooy force am mooy mi ngi ànd ak nguur gi di leen défendre dans les médias wa ku ma wax rédaction bu mu sa bokk ma rey la teeñ lu ko neex wax dara du ko ci fekk parce que la muy wax neex na ñu fare ci nguur gi mais danuy respecter ñoom seen position parce que nit ku ne sañ nga ànd ak ki nga yaakaar ak ki nga bëgg mais nan nangul un sëñ mu mën a far fi mu bëgg a far mais beneen bi ci topp mais sëñ Saliou ñu ne la dafa ñàkkee teggin magistrat yi ci contribution boo xam ne dañ ko jox mu jàllale ko comme ni nga ko defee ci Pam Ndiaye ak ñeneen mais Madiambal Diagne lan la bindul ci juge kaytaa lan la bindul ci ko ñoom duñ ay magistrat ma Madiambal mi ngi doxi nu ko neexee di wax lu ko neex keneen ak keneen ab juge attewu fi mbir ba pare ñu jël ay kàddu ñu ni la fii la bokk nu mu tudd Pastef pourtant ki ko bind ba tey mi ngi doxee soxlam kooku ñàkkawul war ma ab magistrat kon nan respecté sëñ Saliou Guèye te bàyyi ko mu génn bàyyi Pam Ndiaye mu génn bàyyi keneen ak keneen mu génn loolu nag bu dalee ci kaw presse bi presse bi dañ ci am wàll parce que nag uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee ndaxte ci jamono lay wàdd ku mës a laal ci journal journaliste yëpp jug Walfadjri 24 heures chrono laas bi leen songee boobu presse bi yëpp yëg nañ ni ñii laal nañ leen mais tey jii dañuy woo ab journaliste mu dem dañ kaa tooñ tooñul la mu wax am nag amul mais ñëpp ñu seetaan ko ku ne foog ni mbir mi du dal si yow tekki ñu am ay organisation yoo xam ne des fois da ngay poser question nguur gi lañuy liggéey wala presse bi pourtant dañ ay syndicat yu journaliste la fii leen fi tëj Walfadjri ak Sen TV ci mars deux mille vingt et mais ñu dem ci premier mais jàkkaarloo président ki jiite Synpics si dem taxaw ba tey ji tudd fa tur Walfadjri ba tey tudd Walfadjri alors que même problème bi Sen TV amoon la Walfadjri am mais dafa jàppe zappé Walfadjri kooku tey ji la jàpp ab journaliste mu naan ku amul carte du mu ko lijjanti mu ngi mel na nga naan ku amul carte d'identité doo sénégalais. lii ñuy def dañuy néewal doole ndaxte boo demee en France ñun journal dañ ko doonu ci tubaab yi mais bari na fa ña fay gën ay ci France am na ku ci interviewé Emmanuel Macron yàggul amul fu mu defee formation ci àddina formation dans le tas def te ñeg ñi def formation dans le tas def ko dans les def pratique ba toll fi ñu toll deux deux mille mille 2007 ba deux 2012 ak tey jii def presque vingt ans de carrière benn ministre communication boo xam ne jamono bi sëñ Saliou du door moom ma nga école di jàng tey jii doon ab magistrat bëgg a wax journaliste yi ni ngeen di doxale kii moo ko doon ak ku ko doonul comme ni mu ko doon waxee ci Pape Alé Niang journaliste yi may ko loolu di ko invité dans les plateaux mu saña a défendre loolu ci koo xam ne magistrat la te ñu lam laa may wunu ab magistrat la liggéeyam na mu koy doxalee ak ki mu doon ñun suñu yoon nekku ci respecté na li mu doon ma ab avocat la doon ab avocat ñu respecté ko métier ñun ñu permettre ko mu dugg suñ biir métier dañu wax kii mooy lii kii mooy lee kee mooy lee alors que ñun bi ñuy dugg ci métier bi moom kenn xamu ko ci réew mi xale bu ndaw la woon li ma benn waaye waxoon mu ne Omar yéen a ngi doog am problème ma ne ko lu tax mu ni ma Macky Sall ministre de la jeunesse ak ministre communication bi mu fal ay boy disco lan billaahi loolu wax mu ne ay xale yu ndaw ay boy disco ñu jiite leen ci kanamu ay kilifa <laughs> réew mi nin ko yoree ki ko yo ku ko yoree kër sax kër ga tas kër réew mi ni muy doxee kër gu ko doxee sax tas mais sañu sañu jox cër sañu respecté ndaxte presse bi duñ seen ennemi duñ seen noon ji ñi ngeen di dëkkal naan Sonko lay liggéey billaahi gëm naa liggéey lu Sonko parce que dama ci xam ñoo xam ne liñ doon xeex ci xalifa xeexoo ci Karim xeexal ko Macky sàll xeexal ko Laay Wàdd ba tey jii moom lañu xeex c'est de hommes de principe amuñu njëkk duñu ab kalpe bi ñuy def ci poos di ko may wala di ko saraxe mais danoo gëm ni Sénégal moo leen gëmal seen bopp suñu réew nag li ko yàq mooy intérêt général ñi ciy dox bariwul intérêt personnel ku ne yaa ngi sa bopp bu sa mbir di dox ngay am loo def sa poos mën a dem di dëkk pour yow réew mi foofu lay am pour yow réew mi foofu la yam fekk lii raam na lii raam raamul ba dal sa kaw ak sa njaboot rek da ngay jàpp ni man lii du dal sama kaw jamono ji ñuy téye njaay Ndiaye Maty Sarr Niang Coro di doog a génn jàppoon fi Pape Alé mi ngi ci contrôle judiciaire ah tey jii ñu ne Serigne Saliou Guèye Babacar Touré Kewlo lim bi mi ngi bëgg a bari de Macky mi ngi bëgg a battre record bi te dana woon du mës a jàpp ab journaliste lan moo xew ci diggante bi ba lii lépp di am Macky Sall lebaluñ ko lii billaahi lebaluñ ko lii mais malheureusement la waaj a waxoon mooy ñi lay trahir dëgg duñ doon say noon sa xarit rek moo la mën a trahir boo dëggee diw trahir nañ ko rek ku mu gëmoon la yaakaar ko jàpp ni kii mooy waaja waaye wala fi nee na sama waaja sama waaji yàlla na fekk mu mat waay jamono jooju ay jeune reporter yi ñu jàppee ne ñoom ñooy journaliste nan ngay gisee ab jeune reporter boo xam ne ba mu duggee ci métier beeg léegi matul ñetti at amul benn expérience compte bu baax wala reportage bu baax mënu ko mënul revue de presse mënul dara lu mu def lu ne dañ ko ko defloo yenn saa yi bu yegsee dans les rédactions yi sax dañ koy corriger ak di ko bindalaat parce que amul benn expérience ñu bëgg a jàppee kooku journaliste parce que am na carte presse ki def vingt ans ci métier bi. ñu ni ko doo journaliste mais loolu xel nangu ko xale yi dem daje di tëgg ak di fecc ci jamono joo xam ne ñu ngi toroxal journaliste yi ci réew mi di organiser ay fête di ko pare ne Babacar Diagne bari na ci ñoom ña doon fecc di interroger Babacar Diagne mën na am bu pexe Babacar Diagne matoon ñoom duñ xëyati ndaxte kër ga ñu nekkoon wal Babacar Diagne dem na ba leen ni menacé ni day retirer seen licence ginnaaw une semaine yu mu leen tëj kon presse bi liñ leen di teg daf mel ne dañ ko mérité lu waaye nangu ñu teg ko ko dagan na ñun ñi nekk nañ ay xale yu ndaw nekk ci ab rajo oxygène ñu tëj rajo bi juróomi fan ci loo xam ne lan la ñu waxoon mooy élection locale 2009 rajo bi warul wax ci politique ñu ni leen ñun lan lay nekk une rajo locale ba pare élection locale am nga ne duñ ci wax dañ ci wax par force ñu tëj rajo bi juróomi fan. teg ci tijjiwaat ko mais boobu malgré que ci rajo communautaire lan nekkoon en 2009 émission politique yi bokkoon naa ci ñi ko doon animé mais danoo gisoon presse bi yëpp ñoo jàppale ñu taxawuñu mais tey malheureusement loolu amatul kenn jugatul kenn waxatul jël nañ paaka bi jox sunu noon na ko rend ñu la Adja Aram jën doon wax moom lay jeexale nee na ku rey sa bopp dee. bu deful nànk nag looloo dal presse bi ñoo rey suñu kon bu dee bu bu kenn jaale sa morom dugaat dafa jot taxawaat dafa jot mais aussi tamit euh, éthique ak déontologie bi ñuy wax ñu koy doxee ab askan boo fa toroxalee kenn toroxal nga ñëpp waaye boo ca teralee kenn teral nga ñëpp Modou bu dee jeex na ñu yem fi di jégalu nag euh, ci kàddu yi parce que nag daf ci am loo xam ne il foog que ñu waxante ko waxante dëgg te yàlla tax di ñaanal ñëpp euh, jàmm. ñi ci kaso bi yëpp suñu borom génnee leen ñi ci def ñu baal leen ñi ci deful ñu bàyyi leen ñu ñibbi réew mi suñu borom def fi jàmm suñu borom def fi sutura ñëpp wér ñëpp am xaalis ñëpp am jàmm am salaam di balu ak ñëpp di nuyu El Hadji Modou Top Ablaye ak groupe solution yëpp di wax leen ni di leen partager mais aussi di aimer mais aussi commentaire yi ah. Ah, solution c'est bien bëgg nañ ngeen di seetaan bu baax affaire yi di yëg quoi parce que aussi loolu moo ñu dooleel mu doonoon Omar bun Khattab Gueye di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon